ànd ak waaye lii la soxna di ànd ak ñun ñun dañ lay liggéeyal faw ñun say jaam-jaamaat lañu dañuy ànd ak yow di la liggéeyal faw di la gën a gëm di la gën a bëgg di la gën a nopp barki Sëriñ Tuuba di gën a ànd ak yow di la liggéeyal doon say jaam-jaamaat foo ñu woo ñu wuyu la lii dañuy xeeb nañ ko waaye ba déwén moom bu déwénee ci ca penc ma fekk wan ma ni këy di kër yee yow yegg na te te da nga cay teg dañ koy jox jëriñ ba sa daaw da mu def ko titre foncier ah, waaw moom laa ko fi ma toll. andi sa yos. soxna soxna Boose ak soxna ay sa nekkuñu fi waaye ku nekk ak sa yëf kenn ku ñee sa ku nekk ak sa soxna Boose kay maa ko yor classeur la ba mu fees. waaw man maa yor. Ah, waaw. ma ko am du doom waaw ñëpp am ñëpp am jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf jëf waaye dama ni am table rek la jëf sunu baay il a perdu la waaw dem na ba mag na ba jigéen ñi jënduñu bopp bi ba xamatul lu muy def li bu dañ maa teg ku ku ku gagaa waaw nii liggéeyal liggéeyu Serigne Saliou bi lii may def ak am na ñenn ci samay doom du ñëpp de ani Seydi Xaadim Cuun nekku fi déedéet de moom mooy yeew xar yi bokku ci ah bokku ci de waaye am na ci sa doom samay doom ñoo xam ni cey bi